bëggewaat ñëpp ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay te ñu ñëwaat fii arène nationale fekk si ay xale ay ndaanaan ay champion fekk si waat leen fii kenn kii petit bébé Falaye wala petit Falaye wala grand Falaye tourné bébé Laye wala wala petit Laye wala grand Laye <laughs> bébé Falaye nuyu naa waaw ah, maa fay naka tey sant yàlla bu baax waaw onze bila bismillah inwali yàlla jërëjëfati borom Tuubaa jërëjëf si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ginnaaw nuyoo ñëpp di sant ñëpp nuy nuyu sama adversaire sama adversaire nag moom moom fi indi awma lu may wax ndaxte làmb la làmb moo ñu boole kenn mënul xam moroom mais après jour ba ku c'est le meilleur lay gañ walaay ah sëriñ fay naa la naka tey waaye sant wér kay wala nga nuyu waaw ginnaaw ma julli sant yàlla julli si bi sant sama ñaari waajur maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñu fi teew yëpp di gërëm sama adversaire di koy ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp jàmm baax a baax. nga xam nga ki nga jël. non non xawma ko moom vraiment. waaw ah, say xanaa laajoo ah, man xale laay man maa ngi nii pour bëre man awma benn métier bu dul làmb làmb mooy sama métier mooy sama lépp hmm. waaw. moom nee na moom làmbay métier mooy lépp. waaw ah, maa ngi koy wax ñaanal ku dàq bëre rek yàlla na ko yàlla may ndam. waaw loolu wóor na. ku kon ku ëpp doole. yàlla na ko yàlla may ndam. ku dàq xeex. ko yàlla may ah, comme ni ko waaye rek ku dàq bëri yàlla na ko yàlla may ndam ku dàq xeex yàlla na ko yàlla may ndam. waaw ah, kon de yàlla dina may ndam. eh waaw. koo wekk lool. ah si doole. non non pas ko bëri. <laughs> ah damaa wóolu sama bopp rek. Hmm. waaw instant defe naa ku sa bopp nga xam man sama bopp laa wóolu waaw. waaw ah, kon wasalaam xam nga loolu man man damaa jàkka dem championnat Qatar championnat Allemagne man nekk ma championnat France yaa ngi may dégg championnat France ñu ngi nekk foofu di leem leemal man nekk ma championnat France da ngeen mën a wax na da ngeen di mën a wax normal yéen ñaar ñëpp ngeen di mel ni nekk championnat France. ah déggoo ma ku dàq bëre rek yàlla na ko yàlla may ndam ma ne ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam. dafa mel ni dafa mel ni yow. non. <laughs> man xamee wala tàppe xamee comme li mu wax rek. comme dañu door a gisante. combat bi des na lu bari. comme dama koy ñaanal jàmm ñaanal sama bopp jàmm bu jour ba. ma ñëw defal ko affaire dem sama moom loolu la jàpp quoi loolu la jàpp. moom lu mu jàpp yow li nga jàpp loolu la wax. moom lu mu jàpp loolu la wax. mais man dama ne ku dàq bëri yàlla na ko yàlla may ndam. waaw incha allah ku dàq bëri yàlla na ko yàlla may ndam. ki dàq bëre. yàlla ko yàlla may ndam ku dàq yàlla ko yàlla may ndam. ku dàq bëre ku dàq yàlla yàlla may ndam. incha allah loolu. ah déggoo lu ma la wax. man man dafa am lu ma xaw a jaaxal sa nan ngay dëkkee fii si cat bi fii nii di ragal. di wax mel ni. <laughs> ragal ragal du dem guerre ragal du dem guerre. yow moom ni nga def ni moom ragal du dem guerre. ah ragal du dem guerre. man xamee xameetuma la. non non ragal du dem guerre walaay. waaw non comme ni ko waxee rek man moom am ma problème boobu. man bëre rek bu suur ba dina bëre dina xeex. waaw dina bëre dina xeex. fu ma jëli ko foofu. dégg nga loolu. loolu la xalaat. xalaatam la wax de. waaw xalaatam la dina di bëre di xeex. waaw baax na dinañ xeex ba pare soo ko bëre. incha allah dinañ xeex ba pare soo ko bëre. yow la xool xam ne français nga doo <laughs> ah, baax na incha allah. kii bi nekkul si kanam bi de. dama laa xool xool ko. non non France nga affaire bi affaire bi nekkul si kanam bi si deret bi la. waaw xalaatam la wax rek mais dinañ bëre dinañ xeex incha allah ah, dañuy xeex ba pare soog a bëre. man bu xeex dem ardo ñëwaat. moo tax ma dañuy xeex ba pare soog a bëre. doo dem allah pare naa dañ xeex nañ bëre. xeex samp jaaga. waaw ah bëre door wax kay. bëre ak door. Hmm. ah waaw duñ bàyyi dara waaye saa waay du dara. Eh? ah. xalaatam la wax rek. dañuy xeex ba pare soo ko bëree lu ma la wax kay dafa dañuy xeex pare soo ko bëree. <laughs> waaw noonu la demee xalaatam la wax rek dañuy xeex ba pare. xalaat yow daal ma déggee kon yàgg na. na jël loolu denc ko comme sama xalaat baaxul. bu baax sama bos maay appliqué. mooy dem. léegi baax na nga waaw dara dama ba sant yàlla julli seen bi maa ñaanal ñëpp jàmm di gërëm ñëpp di gërëm kos kii Ibulaay di gërëm ñi ma àmbal ah, ñi ma àndal seex bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum di gërëm waa Ndangaan Samb waa Mar Fafako waa Mar Sulu waa Mar Lodj waa Fimela ñoo jor ba fayaa ko sim na nga comme li ma nga daan juum moo sim naa foogee fop parce que man séeréer laa quoi Ah, iyo fogole sereer mo simna nuun rek ɓiy nuun ɓiy nuun deɓ nuun rokor nuun tena saqu oxa na nuun ñaan rek poti laay a leya andoona yee a buga damtaam no jour fe na combat fe i moxi waasiimo leŋ koy xoyaam fop Ndangaan nuyo passage sama mag bu nekk Espagne neexu maa ngi koy nuyu baax baax di nuyu du gana du di nuyu ñëpp ku su ma su ma limee damay jum maa ñëpp bàyyiwuma kenn incha allah waaw ginnaawam sant yàlla julli si yeneen naan jërëjëfati borom woo ñëpp rawatina sama waa dëkk maa ngi woo waa Gambie waa Casamance bàyyiwuma kenn rawatina waa Njaareem rawatina waa Pikine ñëpp mën limee rek damay juum rawatina nag gox bu ma dëkk bopp coor waaw bàyyi ma kenn ñaanal njabootu sëñ Fallou gi yëpp jaam wasalaam xale mu ngi noonu Ibulaay moo ñu woon tey boole fi ñaari xale ñaari ndaanaan ñaari champion te joxante leen loxo yéen ñaar xaar leen